gannaaw jataay bu am solo boobu nga xam ne gis ngeen ko ci teewaayu mun Mountakha Mbacké di xalifa général kul murid yàlla na fi ak lool ci ànd ak wér muy fédération euh, mboolem daayira yi nga xam ne ñoo lëkkaloo ci réewi Argentine yi di liggéeyal Serigne Touba at mu jot nag ñu ñëw di jébbale seen yi ci ki fi nekkal Serigne Touba Euh, tey jii ñu def ko defin wu am solo comme ni ñu ko baaxoo defee léegi nag ñu feggoo ak ñi nga xamante ne bi ñenn lañu ci ay jëwrin yoo xamante ne bi ñoom ñoo seq liggéey bi teewaaleel fi itam mboolem ñi nga xamante ne bi teewuñu ñu euh, ñu njëkke nag ci Serigne Talla Sall mi nga xamante ne bi ràññe nañu lool taxawaayam ci liggéey bi feggoo ak Serigne Dame Cissé danañ ñëw ci mbokk yi ñu taxawal yëpp waaye moom la ñuy njëkk a jox kàddu gi rek euh, su ko defee mu ubbi ñu soog a dem ci yeneen mbokki taalibé yi aousubillahi mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin suma salaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maolana muhammadin il makin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax a baax di nuyu waa réew mi ak waa bitim réew yëpp di am mbégte mu rëy nag comme ni ko suñu mbokk mi waxee rek nga xam ni tey jii nekk na jataay bu rëy ci ñun bu kawe lool bu am solo lool ci ñun xol yëpp sedd lool ci jataay bi nga xam ni diir bu yàgg moo ngi nii am di ko waajal ndax ñun jataay bi niñ koy amale mooy tey jii lañ ko def fi mu toll nii tey jii bi ñu jógee ci sëñ bi rek lañ tàmbaliwaat pour pour waajalaat ko incha allahu taala ci biir loolu nag wax dëgg yàlla am nañ ziar bu neex bu am solo boo xam ni sëriñ bi ziar nañ ko teewlu na waxtaan wi dégg na lépp loo xamante ni bii eh, ay kaddu la yoo xam ni dafa jóge ci fédération Miftahul Nasri bu Touba Argentine jaar ci loxo sëñ Dame Cissé mi nga xam ne ci kàddoom la ko jottali boole ko ak lettre boo xam ne yëpp sëriñ bi leer na lettre bi eh, déglu kaddu yi nga xamante ni bii sëñ Dame wax na ko ko sëriñ bi bëgg na kontaan na. ci biir loolu nag comme niñ ko faral di def rek nga xam ni liggéey bi comme mbooloo ñoo ko seq te ay jëwriñ yu bari yu jóge ci ay gox yu fasantikoo ñoo fi teew comme niñ ko waxoon euh, départ ba nga xam ni biñ xoolee li teew ci ay jëwriñ mat na 18 jëwriñ yoo xam ni kenn ku ci ne représentant nga ci fédération bi ci biir loolu nag ci lañ def ziar bi léegi nii bay doo génn sëriñ bi doon séddale ñaan yi ak barab bi nga xam ne fi leen xewloo nga xam ni lépp mat na ñun bëgg nañ bu baax a baax di ñaan sëriñ bi bi nga xam ne moom lañ fekk si ñu yàgg fee ñëw yàgg ko fekk ñu teew ko ay déwén déwén bépp aajo bu fay indi ñoo ngi ñaan ci barki Serigne Touba mu nungu ci biir loolu nag xam naa dañ leen di jox ak suñu mbokk jur yi nga xam ne moom ki ñuy jëkk jox nag mooy suñu mbokk mii di Serigne Daouda Ka moom nga xam ne représentant la ci daayira La Plata muy ñu am positif lool ci fédération bi ñu xàmmee seen jëf wax dëgg yàlla ak mboolem ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi yëpp kon xam naa dañuy jox Serigne Daouda Ka euh, kaddu gi moom mu sànni ci ay kaddu incha allahu taala. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq di ñaan yàlla sunu borom bi tabaaraka wa taala yal na yàlla faj aajoy jaam yëpp siyaar ah, bi ñoo ngi ñaan sunu borom bi tabaaraka wa yàlla bu muy sunu mujj gi siyaar di ñaanal ku tedd ki nga xam ne moom lañ fi fekk si tey gi yal nañ ko fekk ay ati ati at di ñaanal waa daayira bi ñëpp itam di ñaanal waa fédération bi ñëpp di am contentement bu baax a baax a baax ci booloo gi nga xamante si bii moom la ñu booloo ñun nag ñuy kenn ci donga yi nga xamante si bii dañoo di yëngu fee ca La Plata eh, ci ndigalal jëwrin sëñ Moustapha Fall eh, ak ci mboolem gaa yi nga xamante si bii moom lañu ñu àndal eh, sëñ Abdoulaye Dieng sëñ Abdou ak Malick sëñ Malick Pick ak sëñ Abdoulaat Diouf ak mboolem ñi nga xamante si bii ñoo topp ci suñ ginnaaw ak soxna yëpp ak seenu Pastef ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Euh, di sant Serigne daam Cissé ak sëriñ taala Sall jëwrin ak mboolem gaa yi nga xamante si bii ñoom lañ fi fekk si ñëpp taxawaay bi rafet na lool am nañ ci contentement bu baax a baax a tam ñoo ngi ñaan sunu borom bi tabaraka wa lépp loo nga xamante si bii am nañ ko ci loo nga xamante si moom la ñuy ñaan ci réew ma yàlla na ko sunu borom fajal aajo yëpp yàlla di ñaan sunu borom bi lépp lu ñu fay ragal yàlla bu nu ko gis yàlla nañu yàlla dàq lépp loo nga xamante si bii ab jafe-jafe la bu fa nekk te eh, teg nu ci siraatal mustaqim yal na nu yàlla xiir ci ak njub nangul na sunu jaamu yàlla defal nu addiya ak njël ci barke seexul xadim ñoo ngi tuub tey jégglu na kaddi yi bu baax a baax a baax te xam ni kàddu yi bu ñu àggee tam dinañ ko jottali jëwriñ ji ak mboolem ñi nga xamante si bii ñoo topp ci ñoom te xam ne tam yéen ñi nga xamante si bii yéen lan topp ci seen ginnaaw nga xam ne ay at a ngi nii dañee ni jébbale ñu itam ñuy jébbale mais loolu lépp ñàkk a waxtaan la woon rek waaye bi ñu ko defee niitam itam réccute amu ci contentement donc moom lañ ci gis ñoo ngi leen di sant di leen gërëm nekk comme nañ leen ko waxee woon rek ñun moom ñoo ngi ci seen ginnaaw toujours tàllal leen loxo lépp lu mu mën doon suba ba ngoon bu ñu bu ngeen nu ko waxee incha allah déggandeem donc buñ ko ci amee dinañ ci bay sunu waar sunu kemtulaay kartan ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci ndigalal jëwrin Moustapha Fall La Plata jërë ngeen jëf. billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bañ leen nuyoo ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar mbooleem ku fi teew di ñaanal suñ mën ta xam suñ ma xam Amadou Basir mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal mboolem mbokki jullit mbokki taalibe yëpp di ñaanal suñ Sëriñ Moxtaar Mbàkke saa borom yokk ay leeram te taas ci barkeem ci daraje borom Tuubaa ah, di ziar bu baax jëwriñi jëwriñi muy suñ ba ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax di ziar bu baax it suñu jëw di ñu àndal muy sëñ Motala Sall ak euh, sëñ Euh, sëñ Dame sise ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax di rafet lu baax wax dëgg yàlla doxin bi ak euh, jébbal bi wax dëgg yàlla addee ji ni ngeen ko jébbale macha allah rafetlu nañ ko bu baax a baax kàddu yi matale na ah, te wax dëgg yàlla taxawaay bi am na solo lool di ñaan suñu borom yàggal ko te siyaar bi ñu def nii saa def ñu def ko ay déwéni déwén ci daraje borom tubaa ah, di rafet lu baax ànd bi nga xam ne nag ñu fédération argentine yëpp ànd nañ ko muy dajale suñu bopp daayira yi dajale addee ji booltoo doon benn ñëw jébbal ko sëriñ bi loolu am solo la kon nañ ci jàpp bu baax a baax comme ni ko suñ motoon waxee léegi rek ndax daayira mbooloo mooy doole te buñ gisee tey taxawaay bi ak jébal bi ni mu demee tey kenn mënu ko ñaar mënu ko mm. kon ànd bi ñu ànd yàlla ñu saabam doole dimbalañ ba ñu gën a ànd mm. ñu gën a suude xam itam daawuñu xëy na ànd bi daawuñ ci participer noonu lool ñu gën a jaajuwaat xam ne liggéey sëñ bi rek moo fi des mm. bu ko ñëpp ñu gën a booloo su jàpp booloo suñ bopp def doon gën a doon benn ndax mbooloo rek mooy doole kon ñi wax dëgg yàlla kenn ku ne rek boo seetaane vidéo bi wala nga déglu li nga xamante ne mooy euh, message yi jaal ci ziar bi war ngaa gën jaajuwaat bu baax a baax a baax di ñaane suñ borom yi nga xam ne daal moom mooy yokk di sàmm di aar yal nañ yokk ñu sàmm ñu aar ñu mot ñu bépp yéene boo xam am nañ ko liggéey Sëriñ Tuubaa Sëriñ Fàllu Mbàkke bi di leen ziar bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi jaajëfal Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke di ñaanal Sëriñ Muntaxa Basiru mi nga xam ne moom lañ jóge yàlla suñu borom yàggal ko fi lool tam wér ba lim yéenee liggéeyal Seexul Xadim mu matale ko lépp ci sagoom ci barkeb Seexul Xadim ginnaaw loolu ñu ngi nuyu suñ bokki jëwriñ yi ñu dendal yëpp sëñ Mor Talla Sall ak sëñ Daouda Ka ak sëñ saaliw ak mboolem jëwriñ yi fi teew yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu am solo bii nga xam ne moom lañ doon taxawee muy liggéeyu daayira daayira nag dafa nekk lu am solo loo xam ne liggéeyu yàlla la ndax Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma mi ko waxoon mi ko sosoon dafa wax ne dafa seet yoon yi yàlla yoon yoon yi jëm yoon yi jëm ci yàlla wenn yoon gënu cee gàtt gënu cee gaaw daayira ma teg leen te it itixaaru it bàyyil xadim la wa taawun li taawun wa tamasuk bi diini xawim mooy mbooloo mu daje tey def di dimbalante te yàlla tax loolu mooy daayira kon euh, daayira bii ni mu ko waxee sëriñ bi sëriñ Mountakha euh, ginnaaw bi nga xamante ne sëriñ Saalihu Mbacké euh, Mbacké yàlla na ko yàlla yokk leer ci bar te taaf na ci barkeem moo nu tuddaloon tur bi joxoon na ko barke boobu moo waral mu jur ñeent fukki daayira ak ñeent ba nekk fédération kon loolu sant yàlla la képp koo xamante ne mas nga cee def saw ñaq wala nga def ci sa addiya xamal nga ne xam nga ne addiya ji ah sëñ Tuubaa nga ko addiyal ndax képp ku joxe fii sa addiya mën ngaa waat na ci liggéey sëñ Tuubaa la koy defal feneen foo def sa addiya nag maanaam mën naa lënt waaye sëñ Muntaxaa mi moom lu waaye teg ci loxoom addiya ci loxoom lañ ko teg te wane na ci mbégte ba ñëpp gis ko wane na ci mbégte déglu na kàddu yi lettre bi nga xam ne ñoo ko bindoon moo ko jëlal boppam jàngal ko boppam defaat ko ci poosam kon taw tawféex la ba pare yëkkati muuraakeem boppam jox na ko muy tawféex joo xam ne ju la joo xam ne euh, new na ko euh, ñu yóbbu ab daayira ñu joxe ko muy muraake muraake moomu nag aju faju aju bépp jullit wala bépp taalibib Sëriñ Tuubaa la kon ñu xam ne loolu tawféex ju rëy la joo xam ne ren am na ko am nañ ko ci ziyaare bi ñu am ak yokkute ak taw tawféex kon ñu ngi ci soññ suñu bopp di leen soññ mboolem fu taalibe nekk ci Argentine ñu jokk ci daayira yi te xam ne mooy àllarbay sëñ Mourou Moussa jam waxoon ne àllarbay bay t Tuubaa la muy toolub Sëriñ Tuubaa kon képp ku nekk ci say say tool war ngaa addiyal Serigne tubaa te benn lenn euh, amut euh, pay ci àdduna wala dara ëpput pay ci àdduna mooy addiyal Serigne tubaa kon ñoo ngi ciy soñ suñu bopp di leen ci soññ ci euh, di jaajëfal baax nag ci njiitul Serigne Yakhouba Guèye la ñuy waxee ak sëñ Bamba Ñeng mi nga xam ne ñoom ñoo ngank fédération bi ak sëñ Mortale suñ ginnaaw kon ñoo ngi leen di jaajëfal baax baa di sant sëñ Gora Seck ci taxawaay bi ak sëñ moo Joxaane ak sëñ Cheikh Samb bu baax ci seen taxawaay waa Argentine TV ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di ñaan yàlla suñu borom nag adde yi ji bokk ci addi Serigne Touba di nangu te dugal na ci baytu Serigne Touba woo mu wax ne waqdi xawaïj allasina daamu fi si wa hab lahum maaraamu barke Cheikh Khadim aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, waaw sëñ Ndiaga waaw kon nooñu ko mbokk yëpp waxe rek nga xam ni wax dëgg yàlla sëñ Dame mi ci suñu wet wax dëgg yàlla ku am taxawaay la ci liggéey bi nekk jëruñu fédération bu Daaru Xuddoos depuis siyaar bi nga xam ne biñ ñëwee ba léegi wax di yàlla lépp moom moo ko jiite di ci sonn di woote ak di def lépp moom moo organisé ba yëf yi mën a amee ni mu amee kon moom dañ koy jaajëfal di ko ñaanal Serigne Touba mu yombal ay mbiram te defar ko te faj mboolem aajo jullit yi waaye wax di yàlla ko ci am positif la koo xamante ni bii def na ci ay taxawaay yu am solo fan yi yëpp guddeeg bëccëg moo ngi ci suba ak ngoon ndax man bi mu ñëwee dama ne ko yow lépp maam say lo la nekk rek loo ci def rek maam ñun ko ànd yow wax dëgg yàlla boog léegi ci ginnaaw lañ nekk ànd a baax yàgg na ko taxawee nag yàlla na ko Sëriñ Tuubaa gën a dëgëral taxawaay bi yokk xéewaleeg tawfeex bu xam naa ci biir loolu dañuy moom nekk La Plata di jëwriñ ci liggéey bi di jëwriñ ci daayira bu La Plata ko defee mooy mu barkeelu ci ay kàddu yu xasida yoo xam ni xam naa moom it day jàllaale ci liggéey bi rek incha allahu taala bisimilah bisimilah barke borom سان إله بالمناجات وأبدا أخنا يديانات دل علي العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وخوليا قصيدتي فاخت قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام قصيدتي فاخت قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام مع توجه النصارى الله ليب لا إله إلا الله سيدتي فاقت قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام أدي بامبا كجاغو كدفني موم دي كجاغو كوكو دفل بو كدغو bàyyil ñu àtte aw layam adiya Bamba ko jago ku def ni moom di ko jago ku ko deful boo ko dogo baal ñu àtte aw layam addi maam Cheikh Rafal barki Borom Touba. jërëjëf macha allah mbokk yi kon euh, lii mooy li nga xam ne loolu lañ leen andiloon ñuy gërëm bu baax euh, euh, Serigne Mor Talla Sall dégg nañu ko ci soññe yooyu mu def ñoom Serigne Dame Cissé bu ñu limee dañuy jum waaye ña fa teewoon ñëpp ci ay jëwrin doon yëkkati kàddu léegi yéen ngi leen leen doon dégg ñu leen di gërëm bu baax a baax. di dellu di beral cant ak ngërëm Serigne Gora Seck mi nga xam ne mooy kilifa liggéey bi Serigne Cheikh Samb mi ñu àndal bokk ci ñi ko nekkal fii ci dëkk bu sell bi di Touba ak ñun ñi euh, euh, di équipe boo xamante ni bii euh, saa su ne itam daañu def suñ kéem kàttan gannaaw bu ñu jotee ndigal ak ay moyens yu tukkee ci moom Serigne Gora ngir mën leen a woon lii xew ci dëkk bu sell bi ci Argentine TV kon ñu leen sant bu baax di leen gërëm. leen dig daje ëllëg ci beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu